te itam yàlla dee la njëkk a bind dund xalaxal mawta wal xayaata liyabluwakum ayyukum axsanu amalan sunu borom nee na dama bind dee bind dund ngir nattu leen ana kan mooy gën a rafet jëf bu ngeen dellusee ci man kan mu ni àddina passage la ñun ñëpp dañu fiy jaar jàll li am solo rek mooy boo fi jaaree sa jaareem na rafet dee nag la Abu Bakrin Siddiq waxoon rek moo ci nekk ndax Abu Bakrin bi Seydina Muhammad génnee àddina dafa am ku ko bind lettre ne ko xanaa di nga noppalu comme sa waaja dem na Abu Bakrin tontu ko ni ko al mawtu baabun wa kullu naasu daaxiluhu dee moom bunt la rek te ñëpp ciy jaar segam ki gën ñëpp muy Seydina Muhammad moo nekk ci biir suuf ku dul yonent bi sa bis dana ñëw li am solo rek mooy ñu rafetal jëfin yi defaraat suñuy jikko fonk jaamu yàlla bëggante soppante te yàlla tax loolu rek moom mooy l'essentiel bi ci àddina kon ñu ngi ñaan suñu wayjur bi dem yal na yàlla wanale koog yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu yéege ko ca su génnee àddina doo ko wax am yërmande yàlla yërëm ko ndax tey mbokk yi waxuma la sama yonent bi waaye suñu sëriñ yi nu gën a yaakaar sopp leen tey boo leen gestoo doo leen gis boo tuddee Cheikhul Khadim ñu ne la mi ngi ci biir suuf nga tudd Seydil Hadj Malick mi ngi ci biir suuf mag moo tudd ñu ne mi ngi ci biir suuf kon la nga cay dégg mooy nit delluwaayam du fenn fu dul suuf yal na yàlla yërëm ko mook way daw lu jullit yam fa fekk yépp ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a ah, comme ñaan du doy ñu bokk jàngandoo fatiha ñun ñëpp fukki qul huwallahu ahad ak benn yéene ko suñu waajur wi waaye yàlla jotale ko mboolem ñu tëdd barzaq ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fatiha fukki lixlaas ak benn bismillah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 kon nag am ak délégation bi dañ koy programme bu ko a ànd moom que nag bëggoon na ko lool lool lool di wax ak moom ba dem yi également douzième gaynde waa ale sax nag ku nekk dafa am parce que nag Sénégal bi ñu naan tapis moom dafa naan ngeen ko xam ne ñun benn kàpp lañ am bi mën ngeen tourné nekk. les joueurs boo woo ñoom biir sax moom kàpp lañ koy waxee ba léegi loolu image bi mu joxe ci football dafa rafet lool man nag suñu diggante daal du sori parce que maillot bi muy footballé sax numéro 8 dafa naa man maa ko ko def dafa jël numéro 8 moom lay sol ba tey papaam maa ngi moom ñoo dugandoo premier quartier en 1981 ba tey mu seen kii ci diggante Cheikh Mouhamadou Mourtada doomu Serigne Cheikh Touba Khadim Rassoul li mu wax ci papa man doy na ma sëkk wan nañ incha allahu rabi fa mu nekk moom gën a fukki témoignage yi def yi rafet waa koñ li mu def ci président Touré doom daa mu ko sant di Touré wàccee liggéey di président li mu terale Fapal tey noonu la terale Touré parce que dara may ñu ba mu tijji ñun ñu wax ak moom aussi ñu ngi lay pouponnière yoo xam ne ñu bëgg mu ay xale ndaw fa ne dara lépp donc li ñu gën mooy islam boo amee doom bi baax dafay ram waale ci li nga def parce booy dem bàyyi fi garab bàyyi fi teen doom bi baax li firnde Cheikh daal baax la ku am sutura la ku am kóllëre la ci boppam maa leen dalal man maa ngi sama famille bi na foo xam na daal bon loolu président Boris Senghor ak l' ensemble du comité exécutif yëpp ku ci nekk xëccoo na ku ñëw mais xam naa ko li moom moo tax ci biir bëri ñu ànd ak bëri ñu yëpp boole général pour ñëw présenté ko ministre Diop Faye la ñu war a ba expliqué woo ko heures la délégation du président de la République ministre Birame Faye mooy représenté Lat Diop ànd ak secrétaire ministère bi dañu wax à 15 heures pour ñu parce que nag yàlla defal na ko loo xam ne tey koo na lu xew ci famille kon borom njiitum réew mi yëpp ko ci boppam loolu defe naa ne ku ne ñaan nga sa doom am te teraanga moom yàlla topp bàyyi bi nga xam ne moo ko ci yàlla toppee ko ci moom na ñi mel ba ñun ñi def ko seen salaamaaleykum man nag man maay mascotte des équipes nationales Sénégal yàlla def Cheikhou moom ànd ak moom fu ne ci àdduna bi tey bu ñu fekkee fii man ñi incha allah 16 heures lañ war d'Ivoire yàlla def loolu fekk ñu fi dañu déplacé ñëw ci moom ndax dañu xam nit ci dayo bi mu am ak li ñu mel ni ko président mooy Diouf waxee rek moo ko ne moom mooy capitaine bu leen Diomaye capitaine ndax dafa nekk capitaine boo xam ne Cheikh li ko téye ci équipe bi mooy mën a defaree mën a jegale nit ñi mën a takkale nit ñi te loolu la ko andi ci biir xam ne moom la ko jëlee wut ci ay wóor juróom jëlee ko ci quartier bi mu màggee kon du doon du doon leader bu mu doon tey Cheikhou xeebul kenn Cheikhou ku mu gis da lay ñëw jàpp na ko boppam xeebul kenn kon vraiment dañu ñaanal yàlla góor gi euh, suñu sakk lool ci kawam te wax dëgg fa yàlla macha allah yal na yàlla yërëm am na yàlla def ay mëne oustaz ki imam Yusuf salaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf yàlla jërëjëf yàlla. te ba léegi ñu ngi fi di ñoom ñu ne ñu leen di nuyu ñu leen di sant ñu leen di jaajëfal ñu laal bu bu nekk ñu ngi te bàyyi nañu leen yàlla yàlla na leen yàlla fay kon ku fi teew rek indi soxla yàlla ku fi indi jàngoro yàlla na yàlla faj kon lu bëgg ci a yàppal jox message bu ko war a mën a yëngal النبي المنتزى بالنيا مرخ النبي المنتزى بالنيا بيت الله من فاز بالله بسم الله نسائب الله خب نبينا يسورا صدر المدينة المنورة محمد صلى عليه وسلم من لنا محمد فكل فوق تسميا وفاق جمعنا يا مؤمنا درجة الوفاء خب المرسلين يا تلاو درجات رسلي كل نبي ورسال يطاف حسن وسيلة هو المتبع حمدنا ما ما مسار والفؤاد